الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نور جناني صف أماني وزد برائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel fu ñu mën a nekk rawatina bokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci seen télévision Touba Vision ñoo ngi fii tey ci Brescia Euh, toog ak sëriñ Isxaaqa moom sëriñ Basiru ngeen xam ne gaawu lañ doon amal màggal gi nga xam ne moom la fédération daayira soxna jaare bi nekk Italie di amal te at mu ne ñu koy ànd ak euh, sëriñ Isaaxa tey nag euh, ñu bëgg a ànd ak moom ci waxtaan woo xam ne lépp rek dafay aju ci liggéey bi nga xamante ni moom la yàlla dogal mu nekk jëwriñ ji sëñ Muntaxa wóolu ko doyloo ko euh, mu ci def liggéey boo xamante ni liggéey bu am solo la di taxawaay boo xamante ni mbokki taalibe yi rafetlu nañ ko te ñëpp itam am nañ ci yéen a fas yéene ànd ak moom kon sëñ Isaaxa moom lañ fas yéene euh, ànd ak moom ci seen grande interview boo xamante ni dañ koy def ak moom lépp rek aju ci liggéey bi nga xamante ni moom la jiite muy eh, daay eh, eh, liggéeyal soxna jaara bi nga xamante ni moom mooy joriñ ji kon sëñ Isaaxa yaa ngi en direct ak seen télévision Touba Vision kon bala ñuy tàbbe ci waxtaan wi rek ñu bàyyi la nga nuyoo ak bokki taalibe yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel fu ñu mën a nekk ci àdduna si. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa yi. ñoo ngi leen di nuyu ci occasion bi incha allah di leen surtout bala ma tàmbali leen nag may eh, jiital sama cant ci eh, ñi nga xam ne ñoo taxaw ci màggal gi eh, gi nga xam ne moo jàll démb mooy màggalu soxna jaara gi ñu fiy def te jigéen ñi teewee ko lool bàgg ci lool mbokki taalibe itam teewee ko waaye rawatina ci jigéen ñi kon nag ñoo leen di sant ak ñi nga xam ne ñoo ko doon organiser. sant daayira Minanul Baaqil Xadiim eh, kon nag eh, ñoom ñëpp ci seen tur ci tur daayira Minanul Xadiim ñoo ngi leen di sant leen nuyuwaat di jagleel ak sunu sant yi daayira maam jaare yëpp te ñu ànd ak taalibe yi itam ñëw fa kon nag eh, alhamdulilah niñ ko bëggee woon itam maanaam weesu na sama njortu sax niñ ko organiser ak mbooloo mi kon nag bég nañ ci lool sant nañ ci yàlla bu baax itam. nag noo leen di gën a sant di leen gën a ñaanal yàlla àggale leen seenub liggéey te yàlla taxaw leen ci nam gëne ci kenn ku ne jërëjëf Serigne Issakha ci kàddu yu am solo yooyu mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi toog ak uh, Serigne Issakha moom Serigne Bassirou fas yéene waxtaan ak moom ci liggéey bi nga xamante ni moom mooy jëwriñ ji te liggéey boobu buñ ko waxee muy liggéeyal soxna jaara xam ngeen ni liggéey bi Serigne Moustapha amoon na ci yéene joo xam ne yéene ju rëy la waaye moom mi itam toog indi ci innovation boo xamante ni innovation bu am solo la tey mën nañoo wax ne wàllu parrainage bi nga xamante ni tey sëñ Isaaxa indi na ko ci liggéey bi mbokk yi ñu ngi ciy taxaw taxawaay bu am solo fu mel ne États-Unis d'Amérique boo xoolee ñoom àgg nañ ci deux 200 maam jaara yoo xamante ni ñoom ñoo leen parrainé bëri gi démb rek bi ñu jokkoog sëñ sëriñ Assane Diop mi ngi ñuy xamal itam waa Espagne ñoom it toll nañ ci 70 maam jaara muy ay taxawaay yoo xamante ni yu am solo la nga gis centre de santé bi nga xamante ni waa États-Unis euh, def nañ ko ca Poroxaan muy liggéey boo xam ne liggéey yu am solo la kon sëñ Isaaxa ci parrainage boobu ah ban message ngay soññ daayira soxna jaara yi ndax jàpp nañ ni Euh, ginnaaw daara ji am na ay yeneen liggéey yu am solo yu fa nekk rawatina résidence bi nga xamante ni njabootuk Seyxul Xadim ji ñoom ñoo fay dal ak jumaa ja ak yeneen liggéey yoo xamante ni laajaan na parrainage bi euh, euh, jëwriñ ji gën cee soññ seen mbokk yi nga xam ne ñoom lañ seqal daayira bi bañ mën cee taxaw taxawaay bi war. jërëjëf jërëjëf ci taxawaay bi taxawaay bi nga xam ne taxawaay bu bi yëpp la fu aw xew. lu jëm ci sëriñ bi e, e, amee rek ñu jëm faa taxaw ànd ak taalibe yi gën koo siiwal te siiwal gi lu jëm ci sëñ bi ak yëgleeg sëñ bi di am solo lool kon nag noo ngi leen ci sant bu baax a baax a baax ci jataay bi tey ñaan yàlla yokk leen di àggale seen yéene itam ci e, fépp rek message sëñ sëñ Tuubaa bi man faa dem taalibe yi fu taalibe yi nekk te taalibe yi presque ne ko fépp kon nag noo ngi leen di gën a ñaanal di leen gën sant. lu jëm ci nag ci daaray maam jaara ji ak mën naa ni fondation maam jaare bi nekk Porokhane day lu rëy loo xam ne ne Cheikh Moustapha moo ko moo ko xalaat moo ko def itam fondation bi moo ko def muy fondation boo xam ne ni ni fondation yu mag yëpp di mel la mel ak euh, autorisation yi ak décret bi nga xam ne moo ko moo ko constitué donc euh, du association fondation la ndax loolu lépp Cheikh Moustapha ci fàggoom la ko defar moom nag moo moo yor lépp lu nekk ci poroxaan te aju ci ñu di ko tudde tax ñuy tudd poroxaan mooy maam jaara lu ci aju mooy kër kër maam jaara bu mag yi nga xam ne moom itam Cheikh Moustapha la euh, jumaa ji ak mbooleem li ñu tuddee mën a tuddee daal patrimoine bu nga xam ne euh, moo nekk poroxaan te soxna jaara tax soxna jaara bi ñuy wax poroxaan soxna jaara tax ndax jëkk la bo xaj na ña ko xamoon bul ak soxna jaar ñu ngi xam tur yi dina néew lool kon nag euh, fondation boobu la sëñ Moustapha def ngir bëgg rek yëf yi gën a officiel gën a continuer euh, ci la lépp lu aju ci euh, Porokhane tem aju ci maam jaar nekk wax naa la kër gi sëñ tax sëñ Moustapha kër gi la jëkk a def kër maam jaara muy loo xam ne ni itam léegi kenn mënut a xalaat bu fi nekkutoon ndax waxtu maag barki démb rek waa kër sëñ Tuubaa yëpp daje nañ fa waa kër maam Mor Anta yëpp daje nañ fa te loolu lépp ci kërug Soxna Jaara dëkk ak seen maam eh, wéttali seen maam ci guddi googu kenn ku ne di ko ñaanal loolu jafe la loolu mbay ma mën a sax kenn amu ko ci àdduna si lu mat bëgg a wan ñaari téeméeri at eh, at mu jot sa waa kër daje ci sa kër eh, sa kër yëpp di ci aju loolu lu yéemu la loolu lépp xalaatu Cheikh Moustapha la ngan na ko yàlla dolli reer waxtu wu ne xalaat beneen bi nga xam ne moom doy na moo gën a mooy bi wéy ba faw mooy xalaatu daara ji fu ñuy jàngee alxuraan fu ñuy yara yaru maam jaara fu ñuy jànge formé jigéen ñi ba ku fa génne ku ne mel na nga war a mel ci sa wàll wàllu àllaaxira sa digganteeg sa borom ak sa digganteeg sa àdduna loolu mooy li nga xam ne moom la jullit bu ne bëgg bëggoon a mel loolu mooy mën naa ne rek ci gàttal loolu mooy objectif bi loolu nag euh, ba ko xalaatee te xalaat euh, ay turandooy soxna jaara di fa dajale dajale leen foofu ñu ci mën a dajale euh, ñu di leen yar yaru maam jaara yaru maam jaara di leen jox jikkoy soxna jaara di nga xam ne naka jekk soxna jaara dafa dafa dafa dafa dox ci àddunaam ba mat dox àllaaxira diggante borom ba looloo tax la ko war ci àdduna yëpp di mu mën koo def dam ware kon loolu la itam lay jéemee forme jigéen ñi ba jikko ju mat jooju jikkooy jikkooy eh, jullit xaqan jooju nekk ci ñoom loolu nag alhamdulilah di yéene Cheikh ju rëy jooju yàlla ngu ci gën a dimbale waxtu wu wax nga sànq ne na koy ba mu koy ba mu koy tàmbali yéeneem ju mag ja moo doon fu ab daayira euh, daayira maam jaara nekk ci àdduna si ci biir Sénégal kenn ku ne man fa am ma représentant ma am kenn nga xam noo ko fay représenté euh, booba booba daayira am jaara yi mën nañ daanaka jege woon nañ noonu nañ ay deux mille cinq cent jëm yu mel noonu nga xam ne kon normalement yéeneem booba moo doon àgg foofu moo doon àgg foofu kon euh, euh, looloo nag ci la nekk lañ nekk di dox ba bi ñu fiy jógee euh, xamaloon nañ ne booba ba mu tàmbalee rek daanaka lañ jëkk a dajale mooy lim boobu mooy quatre cent cinquante yi moo fa nekk ba mu fi jógee waaye lam bëggoon yàlla daal na koy defal bi mu fi daataa bi mu daataa wàccu liggéey fekki bàyyim bu baax ba nga xam ne moom la doon nekk ci ndigale ma ki tereem te lépp génnut ay ndigale Sëñ Tuubaa ki tereem Euh, loolee euh, booba am na ñu fa tàmbalee mokkal alxuraan ba ka fa jëkk mokkal alxuraan fekk na ko fi nga xam ne kon fa saasa euh, yàlla daal nay àggale yéenam ci lam ci bëgg woon nam ko bëgg woon ci ci quantité bi itam ndax moom daara ji li tax mu yéemu dafa boole qualité bu mat sëkk ci ni ñuy jàngale ak lañ fay def ak yor ba waaw moo tax nag xaj na mënut a mënut a gaaw a yaatu ni mu ko bëggee waaye ñoo ci yoon wi ndax bu fekkente ne ma léegi ni nga ko waxee léegi juróomi téeméer yi mat nañ waaye yorub juróomi téeméer yooyu moo gën a moo gën a yéemu ndax euh, euh, yor gone yu toll noonu te Cheikh Moustapha loolu ci condition yi daara ji la bokk euh, bëggut ñu manqué lenn lu nga xam ne dana mën a dana mën a jeexital ci seen nekk fa ci seen la nga xam ne moo tax ñu nekk fa mooy njàngub alxuraan ak yar Euh, lenn lu nga xam ne nit dana ko dégg ci daara te muy xaw metti loolu la ci dindi li te la ci ëpp ku ne xam na ne daara la ci ëpp mooy mooy dund ba la ci ëpp ci li nga xam ne mooy metti ci gone gi mooy dund ba ak ak ak kodd ga ku ne xam ne daara ku jaar ci daara ku ne xam nga <laughs> la ca nekk ci xiif la ca nekk ci rafle la ca nekk ci yére yi tumuranke yoo xam ne nii ba tey mi ngi am ci daara yi waaye mën nañ ne foofa yooyu yëpp yàlla dimbali na ko ba nga xam ne loolu yi ceeg bëggam mag yéeneem la ko yàlla defee ba nëg ba ni loolu moo tax itam eh, ña fa ña fa ña fa nekk ñëpp eh, am bëggu nekk fa dajaloo dongo ya loolu néew na ci daara ju nga xam ne eh, ku fay dem di bëgg boo fay jógee naqarlu te loolu daara ji mboolem bu vacances jotee ñoom ñëpp ñooy touriste loolu yorin wala ak topp tooga ak nañ nañ bëggantee ci seen biir loolu itam yéeneem yàlla daal na koy def ci ñoom ndax daanaka ku fa ku fa dem rek daal di daal di soppiku soppi goo xam ne nii jëm ci noonu jëm ci ay melo jëm ci ay jikko jëm ci eh, daanaka rek melow soxna jaara ba ñoom sax dañoo xam ne looloo tax ñu di leen fi yóbbu yor jikkoy soxna jaara moo tax ñoom ci seen bopp ñoo koy waxandi ci seen biir ndax xam la ne am na nuñ biñ leen ko daataa wax damay wax li gën a jafe ci mu jàng jàngale mooy fexe ba ki ngay jàngal xam di tax nga nga di ko ma di ko jàngal waaw moom nag dafa mel na ci gën a yéemu mooy eh, ku fay dem léeg-léeg sax bala ñu faa dem eh, gone yi tudd maam jaara yëpp daanaka fi mu ne ñi ci am maam jaara kenn ku ne sa sa doom ñu ci baree baree bari dégg daara ja di ko gis dañuy yàkkamte dañu ci sonal seeni i waajur ci damaa bëgg dem daara ja damaa bëgg daara loolu nag mooy yéene ju mag yi looloo tax Cheikh Moustapha bëggoon képp ku tudd maam jaara te te mooy yéene ji Eh, te te bokk yee bëggoon mu dem fa boobu suñu yéene moo doon mu àgg fa loolu nag eh, dara ja jafe na lool eh, waaye xam na ne noo ci yoon wi ndax ba ba ba daanaka ni ko Cheikh Moustapha xalaatoo muy carte yi nga xam dañ ko ciy dugge ci biir Sénégal ak ci biti mën nañ nekk carte yooyu naka jekk ba at yi ba daaw jekk moo yor dundu gone yi ak lu ñuy def ci daara yi nga xam ne kon euh, loolu ñu ñaan ay ay treize millions ak quatorze millions par weer loolu kon carte yee koy def loolu mooy mooy mooy yàlla daal di fekk siwaat Cheikh ci bëggam waaye euh, ku ne xam ne ne lu toll noonu lu rëyee noonu lu ci dolliku itam daal di daal di feeñaat ca frais kon lu mu gën a yaatu frais yi di gën a rëy Euh, frais yi nga xam ne mooy mooy jàngalekat yi frais yi nga xam ne mooy dolli dolli jàngalekat ndax lu mu dolli ko dolli jàngalekat bi gën a dolli ko yi gën a dolli classe yi di gën a dolli ko loolu lañ ciy sàmm ba tax euh, ubbiku gi doxin wi xaw a yeex ci loolu lañ xalaate nag euh, naka la ñuy def ba financement boobu gën a gaaw gën a gaaw a àgg ci objectif bi nga xam ne jublu nañ ko loolu moo waral xalaatu ci gàttal parenage mooy kenn ku mën a parrainer kenn kenn ku mën a adopté kenn ndey daara wala muy góor muy jigéen eh, di ko dundal di ko dundal ñu jàpp ne xaj na téeméer par jour mën naa mën naa ni ko unis koo xalaate ni ko Nations Unies xalaate ci suñu réew yi xaj ne mën naa dundal nit waaye ku ne ne ne sax loolu <laughs> léegi wees wees nan loolu foofu waaye teewut loolu la euh, muy quinze mille francs par mois euh, ci weer wi euh, di foog naa ne cent quatre-vingt mille jëm deux cent ndax loolu mooy quinze bu fekkente ne quinze euros ci ñi benn euro par jour ci ñi nekk ci biti loolu nag yàlla def mu bañ ko xalaateeg léegi tàmbalee ko ci fii bitti ci bitti ci ci daayira maam jaar yi nekk ci bitti lañ ko tàmbalee waxe eh, yàlla dogal mu mu tàmbalee amuk jublu lool bàgg ci lool daanaka eh, ci at yu néew daanaka benn at lañ koy waxee ca déwén sa eh, muy daaw année scolaire bi passé parrainage yi àgg na fu nga xam ne liñ tuddal dundal mooy far dundal daara ji loolu Cheikh mu Cheikh Mountakha dañ ko tàmbalee daf ne woon mm, dañ ko wutal keesu boppam beral ko boppam waaye daf na woon buñ ko laal feek munta dundal daara ji ndax ginnaaw dundal moo tax ñu ñu def ko kon na féetewoo dund bi eh, bu ko matee waaye alhamdulilah loolu mat na daaw daaw daaw tàmbali daaw eh, parrainage yi mooy dundal daara ji yëpp mooy ne kon eh, lu man di xew bu ko calculer yaakaar naa ne léegi si parrainage yëpp muy Sénégal ak ci biti ëpp na la nekk ci dara waaw te loolu jàpp naa ne tàmbali la mooy ne eh, incha allah dox bu gaaw a gaaw mën nañ koo dox ba ba nga xam ne ni ko euh, Cheikh Moustapha yéene woon bëggee woon ko ko ñu dem ba nga xam ne ñëpp ci ñi nga xam ne bëgg nañ seen doom ju tudd maam nañ fa mën a dugg. loolu yàgg jàpp naa ne ci at yu neex ndax ndax jublu gi am na loolu baa ngi ci lool xaj na léeg leeg ñàkk gee xam ñàkk gee yëg moo moo tax nam waree gaaw a doxee sax doxewu ni waaye loolu it ñoo ngi ci moo waral ñu def léegi fi ñu dem wax ko fa moo te ngeen ñëw ci ni yooyu ci ngeen ñuy dimbale ci loolu la ndax communication bi yëg léegi ñu ngi def lu bare bari léegi waaye ba tey teewu des na des na ndax lu mu gën a yaatu rek nit ñi di gën a jublu li may wax moom liggéeyal sëñ Tuubaa moom wala liggéeyal yàlla ci soxna jaara ci ci ci dongo yi yaakaar naa ne ku ne bëgg na ko def ñàkk xam waaye ku ko man ba ku ko man ku ne eh, buñ la xamalee eh, loolu ñu tuddee téeméer par jour te ñi ko man bari na eh, da nga ko def xaj na yëgle gi rek moo des Sénégal kese bu fekkente ne ñu ngi koy tàmbalee yéeg bu baax ndax Sénégal yi léegi mu commencé bari euh, lool ñu ngi ko am ni ñu koy def ci bitti la ëpp ba tey waaye Sénégal yi léegi mu bari waaye waaye wóor na ne daanaka dakaar rek bis bu ñu ko xamee ba nekk ci Dakar kese mën naa fournir lu ëpp 500 am jaara leen dundal nga xam ne kon yoon la wu nga xam ne daal nit ñi jublu nañ ko daayira yi jublu nañ ko euh, te ñu ngi koy def bu gaaw a gaaw waxoon nga sànq ne. Eh, bi ngay wax nombre bi ma ne Amérique xaj na ñoo ci ëppale te ñoom bi ñu ci duggee sax yàggut xaj na dañoo gën a organiser ci googu wet moo tax ñu àgg foofu léegi sax xam naa ne day léegi ñu àgg trois cent yi na man na deux cent et quelque cent soixante nangam nangam xam naa léegi ñu àgg ci ndax loolu da ngay gis benn dëkk rek nga xam ne eh, dana def cent eh, loolu lépp niñ ko organiser moo tax waa waaye waaye mën naa ne Europe gépp léegi jëm nañ ci ba màggal gi wane na ne ni eh, Italie itam eh, niñ ci niñ ci ni nim ci nim ci jéego yiñ ciy def jéego yoo xam ne moom itam bañ tàmbalee yàggut waaye jéego yu mag a mag def nañ ko ci daaw ak ren ndax eh, bu nu seetee daaw ak ak ren dañuy daal gis ne doublé na ko bu yàgg yàgg daanaka sax ñaari yoon liñ leen di def moo lay xamal ne kon dox bu gaaw a gaaw lay dox loolu lépp nag Pastef bu taalibe parce que taalibe bi yëpp nag yu góor yi ak yu jigéen yi euh, bañ koo xamee dañ ci daal di ànd ak sëñ bi loolu mooy sëñ Tuubaa moom ab taalibe loo ko wóolu jëm ci sëñ Tuubaa te te surtout lu nga xam ne wóor na ko ne ci sëñ Tuubaa la jëm wóor na ko ne bëgg ko sëñ Tuubaa la ndax lee amut li may wax toujours amul benn lu nit mën a defal sëñ Tuubaa lu ko gën a ñor muy sëñ Tuubaa ku ne xam ne alxuraan moo ko moo mooy léppam. kon nag eh, te ab yar itam mooy métier kon nag boole ñaar yooyu fi barab nekkal nga fa sëñ Tuubaa kon nag ku fexee ba ay nit man faa nekk di jàng ci condition yi na mu a kooku mooy nit ñi kooku mooy ñiy participer ci daara ñëpp muy ci carte yi ci parrainage muy ay individus yi nga xam ne ñi ngi def ndax wax nga yuñ fa réaliser yu bare bari yoo xam ne nit ñee ko def Euh, wax nga centre de santé bi ay daayira ko def daayira am na ñeneen ñuy xalaat li nga xam ne mooy xawli euh, mooy xawli gàllankoor léegi ci ñu gën koo mën a yaatal sax duutu xaalis daanaka waaye surtout dortuwaay fu ñuy dëkkee la waaw loolu tax ren sax nañ waroon a yaatale yaatale wuñ ko ndax amuñu fañ ko fañ dëkkee woon la waaye am na bu nga xam ne mooy troisième bâtiment bu nga xam ne ña ngi ko fay def dana àgg xam naa ren ci incha allah bu déwénee dinañ gis bu baax a baax ni nga xam ne noonu lay gën a yaatoo waaye bu dul loolu itam centre si nga la ñuy soxla waa ci daara ji yëpp ñun ñaa ngi koy def te loolu lépp mooy xam gi yëg gi ñu xam ne luñ ko am condition yañ fay nekkee lu mu gënee njàng ma di gën a gone yi di fa gën a mën a nekk de di fa gën a sawar a nekk looloo tax euh, centre de santé boobu ku ne xam na ne fu ay téeméeri téeméeri ay gone nekk euh, waroon nañ ko war na faa war lu mel noonu war na faa am bu yàgg xëy na yàlla ko dugalu doon waaye moom itam Pastef taalibe yi looloo tax waa fédération bu Amérique bi ñu xamee loolu daal di jaayante ci ci seen biir ci daal di koy daal di koy defar def yéen a yéemu ndax euh, boo ko dee seet par rapport ak centre de santé yi am Sénégal wuti nañ lool ndax ñoom dañoo daal defarluwaat plan bi defar ak kii ba ci at mi juste ci at mi la projet projet bi tàmbali ci ba muy am at muy ci bi ñu bëgg a màggal Porokhane gi ci keesu Rajab dañ ko tàmbali yoon ci keesu Rajab ci mën naa ni noppi na te daanaka équipement bi ñëw na nga xam ne kon loolu mënutoon a ñàkk ci daara waaye lu ci mënut ñàkk rek taalibe yi def ko loolu mooy li am solo ci. liggéeyu sëñ Touba am na amoon na tuuti ci problème mu ndox euh, ndax benn taali bi mbokkum taali bi mu am Pastef moo fa indi woon ndox waaye ñu dem ba yàgg ndox mi xam commencé wàññeeku tuuti ndax demande bi dafa bari loolu te waaye benn meneen mbokkum taalib ba mu ko yëgee moom dafa dafa forage ba forage ba moom itam fan yi dañ ko inauguré noppi na forage boo xam ne moom daara jaa koy moom te itam xam nañ nam fa nekkee lu munta ñàkk ndax euh, ñu bari yëg nañ ne def nañ fa centre de santé centre de formation bu bees boo xam ne ni dana mën a jël daanaka ñëpp ñu mën a bëgg ñi ci àgg te bëgg ay formation yëpp dana mën a ba mën a jël ñeneen ci ki ki région bi foofu loolu itam euh, loolu dañ daal di soxla ndax dañ fay dañ fay def lu jëm ci ak mbay élevage ak yooyu yëpp nga xam ne day soxla ndox waaw kon alhamdulilah moom itam ginnaaw euh, li ma wax léegi rek lu daara ja soxla rek taalibe yëg ko kenn ku ne daal di ciy taxaw na mu war a wax kooku itam daanaka euh, noppi na dana commencé incha allah ci kii bii génn te noonu la mais même euh, jàkkaa jañ fa doon jañ fa jëkkoon a def sax tem xawaat tuuti toj nañ ko bay defaraat yeneen te loolu lépp bokki taalibe yee koy def <laughs> bokki xam ne kon bu bokkut ak carte yi bokkut parinage itam bokki taalibe yi ñu ngi def koy yëg te man ko lool ñu ngi def ku ci yëg rek te soxla dara daanaka yaa ngi koy def am na fan yii rek mbokkum taalibe mu nga xam ne comme euh, ma ngi fay tàmbali def fa benn puuf boo xam ne daara ji moo ko moo ko moom ko fay defal te dana fa am njëriñ lool dana am njëriñ foofu fépp sax ndax pour moderne lay doon bu nga xam ne amutoon poroxaan loolu itam ci wet daara ji koy def loolu lépp mooy ne nit ñaa ngi def wóor a am na ci pour rek gën a xamal nit ñi ne eh, taalibe yi moom ñu ngay jëkkante ci liggéeyal sëñ bi ci waxtu wu ne am na benn mbokkum taalibe nga xam ne ba mu ba mu déggee parrainage bi dafa daan laaj dund bi ñaata la eh, ci weer bi mu daal di koy calculer douze mois daal di ko joxe fi saa si loolu lépp mooy loolu taalib bu ne yéene na ko moo tax taalib bu ne yéene na ko ndax taalib bu ne yéene woon naa def lu mel noonu loolu mooy kiimaanoog nituk sëñ Touba waaw te li ci des lépp noonu lay demee waaye parrainage yi moom yàlla ngi ci def taw feex yoo xam ne nii moom euh, mën naa am bañ koy xalaat sax euh, xamuñu woon ne jàppuñu woon ne dana dana gaawi nii waaw moo tax mën naa ne euh, loolu lépp nit ñi sawar nañ ci def lu baax waaye damaa yaakaar gën a sawar ci dundal itam ngir yàlla ndax loolu ndoor loolu moo tax ñuy sarxee moo tax ne lépp nga xam ne kon dundal ngir yàlla dañ ko daal di gisee noonu ba tax kenn ku ne sawar cee def ndax Euh, boo ko dee seet dafa yéemu sax ndax carte yi moo gën a yomb fopp ndax bu dee ci biti bu dee ci Sénégal deux mille la euh, bu dee ci biti quinze euros la foog na euh, waaye ni ni ni parrainage bi gaawee carte yi gaawewuñ ko ni loolu dafa yéemu lool te pourtant benn parenage bu ne mook mook mook téeméeri téeméer daay rëb téeméeri nit ñoo yem bu jëndi carte nga xam ne kon gis nga ni ko <laughs> waaye teewut nit ñi sawar ci noonu moo tax it mu gën a gaaw wax dëgg yàlla ñoo ngi sant bokk bokk taali bi di leen bàyyi ak sëñ Tuubaa tax ñuy def ndax euh, taxaw nañ ci niñ ci war a taxawee euh, kekk ku yëg ku ne bëgg nga cee def nga cee da ngay gis ci parrainage bi sax ñu nga xam ne xaj ne mënuñoo def loolu waaye lañ amit ñu di ko génne di ko ci def ne nañ ma ko defal ci compte parrainage mooy yéene ji ci nit am dama tax lu mu gën a siiw gën a yaatu nit ñi ci gën sawar kon nag euh, ñu dellusiwaat ci liñ commencé woon di leen gën a sant ci yëgle gi euh, ci lu mel nii ndax communication bi moom moo des ñu ngi koy gën a jéem a gën a yaatal waaye lu mu gën a yaatu rek euh, daara ji di gën a tur wi di gën a dem te def la loo xam ne lu yomb xamle na ndax ndax ku ku ku ku mën di doon ab jullit bu mën di doon buñ ko expliquer lañ fay def ku ne. lañ fay def ñor ko waaw dégg naa nag ab taalibe eh, waaye ab jullit bu ne ndax lislaam kese eh, lañ fay jàngale alxuraan lañ fay jàngale di ko jéem a xam boole ci jàngi rek yam ca waaye di ko jéem a xam eh, di jaam yar jigéen ñi ci yar ba gën ci jikko ya gën di leen jàngale itam ay ay ëllëg si biir ay métiers yu nga xam ne kenn ku ne itam dana gën a mën a yor sa Euh, sa bopp ak sa njaboot euh, ca fa ngay nekk ëllëg di ko fa xamle itam loolu mooy li am solo naka nga xam ne itam euh, tasaaroo gi itam daanaka noonu la ndax ku fa génne ku ne ñu fi génne ñu bare bare ñee ngay jàng ñee ngay def waaye ñu ci bari it ñu ngi ci daara yi di jàngale xam ne kon tasaaroo gi Cheikh Moustapha bëggoon ba fu ne ay maam jaara ay mën naa ne daara maam jaara am fa ndax ku dem fu ne di di jàngale Eh, yaa ngi fay tas xalaatu am Jaara yaa ngi fay tas alxuraan li nga xam ne moom na ko soxna si bëggee woon ba tax na am naa ku masa laaj Cheikh Mountakha ne ko daara ji eh, fu mu yem maanaam lu tax mu mel ne ko yemal rek poroxaan mu xamal ko daara ji fépp la ndax ku fi génne ku fa nga dem fu ne mën nga faa daal def daara mu continuer <laughs> muy Sénégal muy ci biti nga eh, xam ne kon loolu luy continuer te loolu jàpp naa ne mooy Sénégal looloo tax ma naan euh, du caagee ni jullit murit bu ne du caagee ni jullit bu ne waaye Sénégal bu ne sa intérêt moo doon lu mel noonu continuer bañ mën a génnee ñu mel noonu ëllëg si biir ñooñee yor seenu njaboot yar seenu njaboot ci loola ci jikko yu mel noonu loolu njariñal Sénégal kese lay doon ëllëg ba tax na kon ñëpp ci war a taxaw jàpp naa ne it ku am xune yaa ngi ci jéem a taxaw na mu waree kon nag noo ngi ci profité di sant ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi taxaw ci daara ji eh, di ko gën a xamal jéem a xamal it ñi nga xam ne xamuñu ko te bëgg ko ndax ñi bëgg lu baax te man ko ti ko def moo ëpp waaw ñi bëgg lu baax surtout kon nag eh, ñu ngi koy gën a yëgle rek di leen santaat bu baax a baax ci yëgle gi ak ak delloo cantewaat bisu tey bi démb gi rek ñu génne ci santaat bu baax a baax a baax eh, bokki taali bi nekk Italie yëpp rawatina bokki jigéen ñi euh, gi ñu génn itam wax dëgg yàlla tubaarkàlla aw na yoon lool ci lépp wuyu gi wuyu gi am na euh, fañ leen defal yaatu na euh, ñëpp wuy si nañ surtout loolu moo ci am solo jigéen ñi ñëw nañ bokki taali bi góor ñi ñëw nañ daayira yi ñëw nañ kenn ku ne ñëw sawar ci lool ak condition yoo man di bàyyi fa nga jóge yëpp jaral la nga dagg ko ñëw loolu nag dañ xam ne comme ni ma ko waxoon démb rek lu waaye bàyyi ngir sëñ Tuubaa yàlla joxe fay la lu gën la kon nag yàlla na leen fay yàlla na leen sëñ Tuubaa taxaw bu baax a baax jërëjëf sëriñ euh, Serigne kaddu yi am na solo euh, dégg ngeen sëñ Issakha euh, loolu mu indi ci wàllu parrainage bi kon daayira bu nekk war na cee góorgóorluwaat bu baax a baax xam ne maam jaare yi nga xam ne ñoom la ñuy parrainé ñuy jàng foofu xam ngeen ni ku defar jigéen defar nga société kon jàpp naa ne message bi sëñ Issakha wax daayira yi surtout jëwriñ ji war nañ cee lu soññaan mbooloo mi bu baax a baax kon sëñ bi xam naa du ñu tàggatoo te ndax miinoon nañ bu yàgg ndax màggal gi nga xam ne at mu ne da koy taxawee ay at ci gannaaw saa boo ñëwee daan nga ñu jox ay conseil ak ay orientation yoo xamante ni euh, ci wàllu immigration bu ci mbokki taalibe yi soobu woon te jëfe ko yaakaar naa étape bi ñu toll passé nañ ko bu yàgg te loolu itam mel na ni namm nañ ko lool kon ban conseil ngay jox wàllu immigration yi nga xamante ni ñooy mbokki taalibe yi nekk ci diaspora bi. waaw mbokki taalibe yi xanaa naa ginnaaw bu ñu leen ñaanalee waxtu rek yàlla gën leen a boole. waaw léeg-léeg gàllankoor damay wax ne taalibe yi mën nga leen a woo ci daayira yi ñëpp ñëw ñu booloo seen alal joxe ci daay waaye boo leen boo boo ngir ñu man a boole seen i liggéey rek mu jafe loole nag ci laa nekk mu liggéey ni xaj na jafe na waaye jàpp naa ne dina ñëw jàpp naa ne nit ñi dañu gën a xam ne seen njariñ mooy àndandoo àndandoo bañ koy yemale te exemple bi mooy li nu sëñ Touba boole ci day ba kenn ku ne sëñ Touba jaral la sa bopp daayira ni mu boolee nit ñi loolu taxoon daayira yi waroon naa gën a mën a boole nit ñi ci liggéey itam te xam ne adduna si même ñi am même ñi am alal morom société yu mag sax benn bu mën a dem ña ngay ña def ay consortium ña ngay dajale kenn kaa ngay kii waxantuma laa kii te fi ne li may wax toujours euh, ñaari nit ñetti nit fukki nit ñaar fukki nit bu ñu dajaloo mën nañoo def dara capital yomb naa def di te gàllankoor gi nag mooy te pourtant dana day yéemu sax ndax niñ wóoloonte ci àndub sëñ Touba te lépp di àndub sëñ Touba bu fekkente ne wóoloonte nañ ko woon ci xol yi boo gisee fan yi yëpp bu may wax ci taal yi ne na kenn ku ne xam ne la nekk ci yow ci bëgg sëñ Touba ak jébbal sa bopp sëñ moo nekk ci keneen ka kon nag na kenn ku ne jàppee sa morom sëñ Touba di ko xool ci sëñ Touba ci sa morom loolu loolu bis buñ ci àggee rek kóolonte gi am te gàllankoor gi def yëpp du dara du kóol wóolante ko te wóolante gi yu bari la li may wax toujours eh, ay expérience yu bari la ñu ni dund loolu itam kenn ci dara ndax léeg gën a jege sax lu mel noonu am waaye du ba mu yàqu bañ koy yàq mën naa du mujj fenn te kenn du ci mën dara loolu itam luy gàllankoor la ak ànd ci lu jëm ci liggéey eh, ndax il faut base bi di confiance waaye. la ci amoon solo ñu koy def itam ñu jaar ko ci yoon te fas yéene continuer di ko jaar ci yoon dama daan wax toujours ne tubaab yi noo leen gën a jub ci wet li leen gën a jubee mooy kenn ku ne ci nun dañ lay yar naan waroo fenn waroo sàcc waroo ndax lislaam ni koy aay waroo tappale war a nangam naa ñoom amatuñ sax loolu waaye loi baa ngi fi di leen boole ba kenn sañ to def leneen lu loi bi kon la tax ñu man ko ñoom du dara lu jaar ci loi bi te loi bi ñëpp la fi nekkal loi bi moom <laughs> bi moom moo keneen mënu ko loolu nag la ca des mooy discipline ba ca nekk nag ànd ba nga xam ne itam te léegi sax te léegi sax moom wax dëgg yàlla eh, buñ ko yomb naa jaarale ci yoon ak ci ànd ndax eh, contrôle yi yomb na amut mbooloo mu ànd eh, buñ ko organiser te contrôler ba nga xam ne balaa lenn xew ñëpp xamandoo ko benn yoon te itam ak li tax itam loolu foog naa ne malheureusement mooy Sénégal gépp sax du ci nu rek mooy ñàkk gee eh, teg nit ki yoon naat ñàkk gee fay nit ki ci la muy def bu fekkente ne nit def na lu dul yoon nañ ko jaarale ci yoon bu fekkente ne jaar na ci yoon ñu compenser ko xam ne jaar na ci yoon waaye yaakaar naa ne loolu du ci euh, nun rek noonu nag ñoo ci rafetal taalib yi liñ man liñ man keneen mënu ko li li li li taalib yi sëñ Tuubaa yi man amul kenn ku ko man bu ñu àndee amut lenn ñu ko man xam naa loolu am ndog la walla am ndogandi la moo tax xaj na ànd googu jafe waaye amul lenn lu nga xam ne soxla nañ ko dugg ci te mënuñ koo fajal seen bopp bu ñu àndee waaye il faut ñu ànd te ànd gi mu am nun yàlla nu jël dimbali ndax ba amee sëñ Tuubaa <laughs> ba sëñ Tuubaa la la la ànd mu boolee no te kenn ku ne mu jaral la li gën a yéemu mooy loolu kenn ku ne mu jaral la waaye bu dara desul si diggante sa digganteeg sa morom rek nga am am ay yëf-yëf waaye damaa yaakaar loolu il faut nu jiital sëñ Tuubaa ci suñu diggante waaw bu ñu ko sàmmee bu ñu ko sàmmee rek yaakaar naa ne yooyu dutu am te waaye nañ xam ne liñ am bu ko ñeneen amoon ñu ko xam mën a exploité kon doy na waaw waaye noonu ñi ko am mënuñu ko dafa mel ne xamuñu ko loolu des na ci waaw ndax yi ndax yokkute gi fépp lay ñëwee bu nekk ci daayira bi joxe sa cotisation joxe sa donc waaye fexe woon ba nga xam ne itam kenn ku ne dangay gën a man loolu itam day yokk rek day <laughs> yokk day yokk sëñ bi day yokk ñëpp day yokk liggéeyal sëñ bi ndax mooy tax ñu man ko ak man ci la lépp nekk ah kon nag eh, wax dëgg yàlla loolu eh, mooy sama bëgg-bëgg ci nit ñi xëy na mën naa ne lim eh, li ma koy waxee du tu bari du ma ne sax dama découragé ndax loolu duma ci découragé <laughs> waaye itam yombul yombul am na signe bu am bu bu am solo boo nga xam ne jàpp naa ne dana weesu foofu yaakaar naa ne yéen ñëpp dégg ngeen ko ci liggéeyu mu Mountakha bi eh, daanaka man nga ne opérateur yi gën a mag ci Sénégal ci murid yi dajaloo ne dañoo bëgg àndandoo liggéeyal sëñ bi loolu musta jéem a am musta xalaata am ndax bu liggéey li mu daan bari bari itam kenn ku ne xaj na bu ñu santee sab sëriñ da ngay def la ngay am nga jox ko sa sëriñ mu def ko ca waaye bii kenn ku ne yaa ngi àgg fa sëriñ waaye kenn ku ne dangaa dañoo àndandoo xafta yoo xam ne xamante wuñu woon daanaka li gën a yéemu mooy loolu gannaaw biñ tàmbalee daje di xalaat loolu lañ commencé gisante waaye keroog bi ñu jëkkee daje ci sëñ Mountakha ñu ci bari kenn xamul sa moroom te pourtant am na ay dëkkandoo waaye kenn xamul ci seen sëñ Touba bi mooy sëñ Touba li li li mu mën a def ci noonu xam nga loolu doy na waar dëkk dëkkante na ay at waaye kenn xamut sa morom kenn ku ne yaa ngi si activité yàlla def la ca lool. Mm-hmm. tax feex ci activité ba ngay def. waaye benn Cheikh Mountakha yàlla loolu la ko yàlla jageel woote liggéeyal sëñ bi ñëpp jug wuyu ko ñoom ñu ne nan àndandoo nun fas yéene di liggéeyal sëñ bi ci sëñ bi loolu lu yéemu la loolu tax jàpp naa ne loolu du yem foofu léegi bari ñu ngi xamle ne ànd boobu du yem foofu képp ndax lu mu gën a lu mu gën a yàgg lu mu gën a yaatu ci leneen itam. liggéey sëñ bi di gën a yaatu loolu looloo tax dafa mel ne tàmbal nañ koo xam looloo tax loolu it joxaat joxaat na ma <laughs> joxaat na ma yaakaar lool na jàpp naa ne eh, du yam foofu te Sénégal it mën nañoo roy xëy na léeg sos gi jafe waaye mën nañoo roy lu baax xëy na loolu itam dana déclenché beneen yëf ci Sénégal te ñooñu buñ àggoon foofu. mën nañoo def mën nañoo avancer loo Sénégal mën nañoo tax ba Sénégal génn ci xat-xati ñàkk yi mu nekk jëm ci xat-xati xéewal yoo xam ne itam xéewal jëm ci suñu borom day doon ndax ñoom ñëpp ay taalibe lañ Sëñ Tuubaa leen tax a jóg kon loolu lépp day gën a jariñ réew mi damay wax sax ne jàpp naa ne réew mi eh, du àgg fa mu war a àgg ci développement fekk murit yi xamuñu seen capacité dajaloo di def yaakaar naa ne buñ ci àggee réew mi dina wuuteeg réew mi tey ci wet gu ne nag noo ngi ci ba tey noo yaakaar <laughs> jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Isaaxa kàddu yi am na solo ñoo ngi sant bu baax a baax euh, ñi nga xam ne ay jëwriñ lañ ci fédération Minanu Baaxil Xaddim muy sëriñ Moustapha Dieng euh, nekk ci jotaay bi ak Baye Cheikh Ndong ak sëñ Cheikh Joxumpa ak sëñ Cheikh Diouf ak bokk yi nga xam ne ñoom ñëpp lañu ko àndal seen grande interview ñu ko doon defal sëñ Isaaxa Basiru gis ngeen leeral yi mu indi ci wàllu parrainage bi ak ci wàllu doxin wi nga xamante ni maanaam daayira soxna jaara yi war nañ koo dox rawatina daayira yi nga xamante ni ñoo nekk ci diaspora bi muy doxin woo xamante ni doxin wu am solo kon ñoo ngi sant bu baax a baax sëñ Isaaxa di ko gërëm di ñaanal Cheikh Mountakha al Khalifa al Mouridiya euh, sunu borom euh, dëgëral ko guddal aw fanam ba lépp loo xam ne naal na ko sunu borom defal ko ci lu ko njortam kon lii mooy seen grande interview bi nga xam ne ñoo ngi ko doon ànd ak Cheikh Isaaxa euh, Bachir di leen jox kon rendez-vous ci beneen grande interview wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu